aajoom ak soxlam mooy aajo population bi te am na benn lim bi ñu fi jot a enregistré ñoo ñaan yàlla lim bi yal donc si kaw loolu ñoo ngi état joxe na fi ay dogal lu si mel ni mu tëj école yi lu tolloog ci limu ñetti semaine ak lépp li manifestation maanaam rencontre chaque fois li laa lay wax quoi religieux ak lu mu mën doon suñu bopp jubluwuñ si nag lenn kenn ku a a fare mais mooy suñu ñëwee ñu surtout yow Thiam. ñooy sant waa bu baax a baax a baax. da ngay génn dem fu la neex nga ñëw def directement ci cuisine bi jël lu la neex lekke ko lu la neex. sans autant nga raxas sa loxo yi. yàlla mooy rey. waaw yàlla rey ah mun boo dee tamit dañ lay jooy après mu jeex ah. Ndiaye ngeen lekk la après mu jeex. Ndiaye. waaw da ngaa liir ñaata fayda sama kanam ak sàll. raxasoo saabu ak amul ba kañ. saabu ndox ba kañ lu ma lu ma def moo gën raxasu chaque chaque instant germain laa jënd gel alcoolisé moom laa jënd bu naw yi jënd naa ci douzaine bi laa jënd su la neexee nga def ko sa poos su la neexee ñun jigéen ñu def ko suñu poset yaa ma may dégg. waaw ah, c'est bon. waaw man yéen laa yërëm sax. ci naka. yéen yéen yéen nekk ci oto yi ku la romb maa ñees droite te wax ko fii rek nga may wax man moom sama dinaa ci bàyyi xel. buñ ma xayma waane waane la. koo romb pis ko atal ko wët fii nii rek. bëgg nga jigéen rek dina doon doom jàng. waaw. waaw loo ko Moussa wax rek wax na ma ko. génn saal bi. génn fan. lu tax génnal saal bi. fan la génn jëf dama sëñ bi na dem léegi toog fa rek. kuy bala bala moo kenn yow lay njëkk mbëgg yow mi di borom.

mais ki feebarul sax war na dem mën utiliser masque bi kon ñooy ñaan yàlla feebar bi yàlla fi yàqu asalaamaaleykum